bienvenue am internautes et téléspectateurs de la TMS TV ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre information El Hadj mu ngay Sow ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ko nuyu le roi de la médecine traditionnelle xalif général de Djindé di nuyu soxnaam madame Sow la reine prince 1 prince 2 ak ñëpp ñu nekk ci kër gi. ah Yatma Mamadou Mbaye Fallou Aliou ah agent de sécurité yi ah bon yi ñëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax bon tey nag ñëwaat nañ ci beneen information di leen rappeler ni El Hadj Thierno Moule Sow di lay liggéey jeudi ak euh, samedi garab yi disponible na donc képp koo xamante ni bëgg na faju dafay dugg ci page YouTube bi jël suñu ay numéro wooñu boo leen woowee jël seen rendez-vous boo leen ñëw ci kër gi incha allah dinañ leen dagal di ngeen gisee ak le xalif général de jinne mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax rek ngeen wéy di topp information TMS TV di ci abonné bu baax a baax ki ngeen gis ni mooy El Hadj Thierno Moule Sow la xalif général de Guinée xam ngeen ko l'expert de la médecine traditionnelle góor gi toog fii mooy góor gi ba naa bu mu fi andee woon doomam macha allah mu sonaloon leen lool. gannaaw ba sëriñ bi jëflante woon ak moom affaire de jinne sonal ko gis ngeen doom ji ak moom ñëw nañ fi ba defi fi témoignage mu sonnoon lool moom tamit ah mais xam ngeen nga xalif général des jinne suñ borom moo ko may xam-xamu jinne moo ko may xam-xamu rab dëmm et autres donc gis ngeen loolu témoignage bi ah góor gi toog fii muy waajuram bu góor wëlbatiku ay soxla boppam indi woon ko fi ah macha allah mu gisee woon euh, ak sëriñ bi avancé woon ko 2 millions. tey nag mu ñëw complété un million te trois millions la ñu jub ju ci la juboo woon macha allah gis ngeen ko noonu mi ngi wax sax ba mu fi jógee ay mbir yu sëriñ bi jëflanteeg moom ba am loo xamante ni dafa feeñ ci loxo bi ah gis ngeen àdduna nit ñi dañoo soxoor dañoo soxor lool bu ñu sekkeeg yow dañuy jéem a faagaagal mais alhamdulilah ba mu ñëwee ci xalif général de Jinne ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax nañu leen dem nuyu góor gi dagal ko. Euh, jox ko wàccuwaayam bu baax a baax laaj ko gannaaw bu mu fi jógee léegi yan changement la gis bu ko defee ñu gis sëriñ bi après on va passer euh, à la grande séance de consultation. voilà mbokk yi comme ni ma leen ko yàgg di waxee El Hadj Thierno Moule Sow l' expert de la médecine traditionnelle yamu dong ci faj rab ak jinne dëmm ah képp koo xamante ni soxla na ubbeeku ci boppam. ay mbiru boppam yëkkati ko incha allah bu jàkkaarloo moom le roi de la médecine traditionnelle dina saafaru góor gi mi ngi nii eh, ñu ngi koy nuyu bu baax di ko dalal ah gis ngeen ko mu ñëwoon fii vraiment ay soxla boppam yëkkati woon ko fi ba mu yëkkati une avance de. 2 millions jox ko sëriñ bi tey nag dafa ñëw doon complété ba mu ñëw jàkkaarloo sëriñ bi sëriñ bi amoon na kàddu yu mu ko waxoon ah amoon lu mu gis ci moom ba wax ko daanaka gis na ko parce que am na loo xamante ni feeñ na ci ci ci ci ci loxo bi ah macha allah papa ñu lay nuyu bu baax di la dalalaat jàmm di la jaar gis nañu tey ji nga ñëw complété. ah say mbiru bopp yëkkati la ah sëriñ bi fas yéene jëflanteeg yow gannaaw ba ñu la nuyoo ñu lay bàyyee kàddu gi li nga xamante ni feeñ na tamit sa loxo nga expliqué ñu nuñ demee. asalaamaaleykum maa leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam gannaaw ba ma jullee si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sëriñ bi di ko gërëm di ko sant nga xam ni gannaaw yàlla moo fi nekk waaw ni gis nañu ay liggéeyam. seetaan nañu ay vidéo am gis nañ fi lu bari waaw kon nag macha allah sëriñ bi jërëjëf ah li ma fi indi mooy sama mbiru bopp bu gannaaw bu mu fi indee woon sama doom ma am sama beneen problème boo xam ne sama sama mbiru bopp la moo tax ma ñëw fii ma ñëw fii waxtaan ak moom ba nu juboo ba nu juboo ma indi am lu mu ko indil après décide bi moom laa indi tey comme ni nga ko waxee moom laa indi tey waaw démb nag bii bu ma tëddee ba ay quatre heures du matin parce que man damay yeew fajar ay quatre heures cinq heures daal dañ fekk ma jóg préparer fajar bi ma jógee sama fii di metti sama sama concu loxo bi fii di metti mu newi ma làmb mu newi ma bi danaa daj bi mais bii dafa danaa daj yax bi mais dafa xaw a newi après muy metti quoi après nag su suba si bu xëyee suba nag ma nga wax sama jabar sama ne ah man sama loxo bi fii day metti xaw ma nag lan la waaw ah, xam nga dama dama am fu ma dóor si néeg bi yéegu ma ko je ne sais pas waaw ah, mun ma kañ la dama nekk si guddi gi de daal si guddi gi waaw après nag man lu ma toog yëpp nag maa ngi xalaat leneen maa ngi ñaaw njort maa ngi xalaat leneen ah, sëriñ bi wax na ko léegi waaw li ma doon xalaat yëpp xam naa si loolu la mais nag lépp daal wékk naa ko si sëriñ bi waaw dénk naa ko sama bopp gannaaw yàlla ak yonent ba dénk naa ko sama bopp waaw loolu daal laa amoon lu ma siy wax. dama jàppale dimbali ma waaw. voilà gis ngeen néewi néewi baa nekk nii vraiment mu doon doy waar xam nga nit koo xam ne dooroo sa loxo fenn defoo <laughs> sa loxo dara mu xëy rek néew yaa quelque chose waaw vraiment. voilà gis ngeen naa euh, mbokk yi gis ngeen ñoo ko déggandoo mu doon doy waar te gis ngeen ba mu ñëwee woon sëriñ bi mu ngi ko doon wax parce que bon. Euh, yaa yaa beaucoup de yoo xam ne dafa xew ci société bi te sërëm ni ngeen ko xamee euh, hormis médecin traditionnel bi mu doon dafa macha allah dafa xam àdduna gis ngeen ay vidéo yu bari da ngeen koy wax di ngeen ci gën a delloo euh, delloo vraiment mu doon nga xamante ni ah moom day yonent bi la yàlla la yaakaar yonent bi la bëgg macha allah kon donc nag dañ koy bàyyi kàddu gi du ko nuyu tey gis ngeen mu mu dem fee ca Màkka ah macha allah gis ngeen ko sañse bu yànj bi. ah gis ngeen dafa bëgg yonent bi macha allah moom day màkk dégg ngeen ko nee na yëru yu rafet yu bari laa fa jënd macha allah xam ngeen cofee cofeelam ci yonent bi ñu ngi koy jaar bu baax di ko dalal jàmm di ko jox wàccuwaayam ah di ko bàyyi kàddu bi tey moom marxaban laa lay wax sëriñ bi marxaban gannaaw ba ñu santee borom bi di julli ci rasulullah salaa salaam di gën di mbindeef di suñu yaakaaru tey ak ëllëg gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna bi di kontaan di am mbégte di nuyu ñëpp ñu ñu seetaan à travers TMS TV di la nuyu jaaji di la ñaanal jàmm di nuyu mbay macha allah di nuyu Aliou di nuyu aussi Fallou di nuyu Mamadou di nuyu aussi euh, <clears throat> Yatma di kontaan bu baax a baax di nuyu aussi Moussa Ba di kontaan di nuyu ñëpp ñu ñu seetaan à travers TMS TV. di nuyu taalibe yi mule mule yëpp di nuyu waa international waa national di nuyu jëwriñ euh, Fabakary Sonko mule jëwriñ Fama Sow jëwriñ Dikel Sow ñaama soirée euh, macha allah Cheikh Tali Bouya macha allah Ismaïla Diallo euh, Virginie Traoré Adama mule macha allah. di nuyu aussi euh, euh, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk waa international di nuyu national jëwriñ ajaratu Khady Ba jëwriñ euh, ajaratu Khady Mbuub jëwriñ Galaay Sey di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à TV di kontaan nag bu baax a baax nag di sant suñu borom tey gis nga ni ma génnee nii tey moom macha allah damaa ñibbi Saudi Arabia macha allah jàllaaba bi nag mooy suma yaay ba ma ko joxee mu dem ajil suma baay alaaji Mamadou Aliou Sow ba muy ñëw nag ci la ma indil série ca bii nii man yi ma yi ma indaale sax solo gu ko am na yu ma jënd yu mel nii sax solo gu ma ko macha allah yi ma indaale sama sama voyage bi ma jogee Umra solo gu ko sax macha allah waaw di kontaan nag di sant suñu borom rek di julli ci rasulullah sallallahu moom monsieur Ba gis nga ko euh, bi mooy ñaari yoon ñëw na fii barki Dembo Ndiaye indi avance deux millions tey mu indi 1 million bi muy 3 millions la ñu waxante euh, defe naa ne santé n'est pas de prix ba ñu ko xoolalee wax nañ ko am na ku nekk ci kawam. daf ko bëgg éliminer defe naa wax naa ko ko gis nga barki Dembo Ndiaye voilà lu feeñ ci loxo bi kon li ma ko waxoon loolu la te moom wax na sax nee na benn jour dafa yéeg ci oto oto bi soog bu soog bu metti daal la naroon def yàlla moo ko ci génnee waaye bu soobee yàlla bu mu ragal dara dinañ ko jàppale nañ ko aar sàmm ko ba dara kenn du ko munal dara ku ko jéemal lu bon day këpp ci kaw kooku incha allahu indi na un million complété bi un million bi ah. un million baa ngi nii muy trois millions waaw santé pas de prix wër amul njëg ndax lii day jeex waaye bakkan moo ko ëpp tey <laughs> boo yoree xaalis nga nay génnee ba nga dee baay xaalis bi ñeneen ñoo koy dundee ñeneen ñoo koy noose ah kon wér amul prix santé n'est pas de prix ndax moom mii dañ koo topp dafa am dafa am ku koy xeex waaye nag du mun ci moom dara ci kàttanu suñu borom dinañ ko jàppale kooku xeexul ak moom léegi man man lay xeexal dinañ ko dimbali incha allah gis nga waxoon naa ko li ma koy wax gis nga loxo bi gis na eh, loxo bi nu mu neewee dafa am lu ñu ko def waaye incha allah dinañ ko dimbali bu ñu jógee fii léegi dañuy dem suuru ñu sangu ñu jox ko ay garab yu ñu ko war a jox incha allah jàmm lay am bu mu ragal dara ñun ay africain lañu ay sénégalais lañu dañu am réalité da ngay moom am sa alal nit teg ko bët. di la indi ay courte karta loolu mooy africain da ngay dimbali nit ba mujj mu def la noonu loolu mooy Sénégal dangay jàppale nit dimbali ko ci sa alal yërëm ko jàppale ko ba ëllëg da lay bëgg a jëlee foofu macha allah donnu sa alal loolu mooy africain waaye bu soobee suñu borom euh, fagaru moo gën faju bu soobee suñu borom nañ ko protégé aar ko incha allahu di sant yàlla bu baax di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaaji ñoo ngi lay seetaan aussi sa émission retro retro moulé émission bi am na solo trop ndax su ma jaar-jaar yi amul lu ma deful ci faj maa ngi koy seetaan bu baax te ñi ñaa ngi apprécier aussi loolu dafa am solo di dellu siwaat nit yi sëriñ bi fu mu jaar ak sëriñ bi lu mu def sëriñ bi amul lu mu deful ci faj waaw gis nga ndeysaan jamono yooyu gis nga lu ne laa def ci faj damay ñëw gis ay jinne yu soxor yi doy waar damay jàkkaar la ñoom face à face xool leen fixé leen samay bët rek bu yàggee tuuti ñu wadd ñu daanu yooyu yëpp def naa ko ci faj amul lu ma deful ci faj maanaam lépp lu ma def rek defit la maanaam faj def naa lu ne ci faj comme ni nga ko waxee delloo naa faj aussi ndax clinique bi deux cent quarante quatre millions du ay caaxaan du ay fo ah loolu ci ci mim réew ku ko génnee kooku jàmbaar la waaw kon faj delloo nañ ko delloo nañ ko ci maanaam delloo nañ ko ci wàccuwaayam waaw di santaat yàlla rek nag di julli ci rasulilah salaa salaam noonu la bon continuation continuel macha allah Retro Moulay ñi ñi dañuy am solo parce que am na ñu ko seetaanoon boo xoolee am na am na ay vidéo yi nga xamante ne am na cinq million de vie am na vidéo yi nga xamante ne am na deux millions de vues trois million de vues un million de vues cinq cent mille vues de vues macha allah ñit yi dañu maa yàgg suivre seetaan ma xam li may def. amul propagande maanaam lépp lu ñuy def rek réalité lay doon amul yokk amul wàññi maanaam comme ni nga ko waxee ni ñu koy jëlee noonu lañ koy dugalee maanaam duñ ci yokk lenn duñ ci wàññi virgule macha allah maanaam loolu man noonu laay doxee du may yokk sama video dara nu ma koy jëlee noonu laa koy dugalee di santaat borom bi rek di julli ci rasulullah salaa salaam di am kontaante ak mbégte di sant suñu boroom di sant mule mule ak taalibe yëpp vraiment ñu du yàgg léegi ñu jublu ci faj bi defe naa ne volcan baa ngi noonu kii mooy volcan jooni jooni kii moo xam ñu corte la moo xam ñu cenke la moo xam ñu def la ay dabare sànni la ay côte karta kii def ci baax dafa efficace kii mooy vite mooy volcan waaw kii nag cuuraay la bi nga xamante ne ci gàncax lañu ko defaree maanaam Euh, léegi léegi ñi ñu préparer suur ko après préparé jox ko mu sangu après ñu jëflante ak moom jox ko euh, garab yi yooyu ñu santaat yàlla rek di nuyu mbokk internet yi mbokk tiktok yeeg ami tiktok yeeg youtube yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment macha allah wér amul amul njëg ndax jamono ji dafa doy waar nit day day yor sa alal sax jéem la faagaagal nit ñi dañu doy waar nit ñi dañoo ñeme yàlla léegi ñeme yàlla bëgge tiit. waaw jamono jooju la ñu nekk maanaam koo dimbali rek day wëlbatiku def la noonu loolu mooy àdduna bi waaye boo fagaroo rek incha allah yàlla dina la musal yàlla dina la aar yàlla dina la jàppale. waaw kon nag ñoo ngi kontaan nag bu baax di sant ñëpp ñu ñu seetaan gis nañ ñëpp taalibe yi gis nañ ñëpp ñi ñaa ngi woote di apprécier sëriñ bi noonu la rek macha allah lu nekkul dëgg rek du yàgg lu yàgg rek dëgg la vraiment macha allah di kontaan nag di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à travers TMS TV. kon nag su ko defee ñu jublu ci liggéey bi rapidement macha allah du noonu. voilà mbokk yi gis ngeen ba tey ñu ngi ci séance de consultation bi tey ah, gis ngeen suñu papa góor gi ba. naaw ba mu fi àndee woon doomam macha allah sëriñ bi jëflanteeg moom dëgg fa yàlla ay jinne sonaloon ko lool gis ngeen gannaaw bu sëriñ bi jëflanteeg moom ah mu wër pegg ñëw fii def témoignage bi gis ngeen ko ci YouTube bi macha allah gannaaw loolu góor gi ba ah, ay soxla boppam indi ko macha allah gannaaw bu mu joxee avance 2 eh, millions leen di passé te mu ñëw complété muy 3 millions parce que ci loolu la tënkoog sëriñ bi. ah ay mbiru boppam indi ko gis ngeen sànq bu mu expliqué yëpp fi mu toog nii ñu ngi passé ci séance de consultation bi ñu ngi koy suul vous connaissez vite fait euh, volcan xam ngeen volcan effet bi muy def macha allah gis ngeen euh, patient bi fi ñëw bu xasee ba am contact ak euh, vite fait te ngeen sëriñ bi bu mu koy wax voilà gis ngeen ah saa bu malaat amee contact ak li nga xamante ni mooy volcan bi lépp lu nekk ci moom day deñ comme ni ngeen déggee souvent sëriñ bi wax ko naan vite fait euh, volcan bi mooy lavage bi moo lay génne gàncax lañ ko defaree mu doon bio ak xam-xamu boppam ak ay secret boppam macha allah ah gis ngeen ko yéen ñëpp saa su nekk rek séance de consultation miin nañ ko ci ah gis ngeen sëriñ bi mu ngi ko naan nooy tuuti. parce que première fois ngay suulu dafay metti macha allah euh, bu dee dafa am lu ñu la sàndi liggéey comme moom la gis nga am na lu ñu ko sàndi mais lépp da koy dindi incha allah. voilà comme ni ngeen déggee sëriñ bi wax ko lavage lay def ci yow lépp loo xamante ne mi ngi ci yow rek daf koy daf koy dindi kottu bépp xeetu liggéey lu ñu la sànni lu bon lu bokkul ci sa yaram te mu lay gàllankoor. vite fait volcante man miin naa vite fait bi tey nu mu fa demee nii ah waaw parce que tamit vidéo bi mu defoon ak xale bi ba nga ko sottee vite fait bi ça sillonne sur la toile aussi ça fait beaucoup de buzz allah gis ne gars yi nu ñu koy commentaire ah kon gars yi xam nañu garab yi xam nañu garab yi gis ngeen mi ngi nekk du suuru volcan ba tey mi ngi ci souvent rek nga ma koy posé sëriñ bi actuellement lu patient bi di di di yëg. bu fekkee mi ngi nekk di di di di suuru voilà gis ngeen ba tey sëriñ bi mi ngi koy wër di jël bopp bi di teg ci loxoom mm, di ñaan ah vraiment teg ci loxoom gis ngeen sëriñ bi mi ngi koy wër macha allah le khalife général de jinné très bien sapé aujourd'hui habillé en grand boubou marron avec un djellaba ah des mocassins noirs Vraiment, il a modernisé euh, la médecine traditionnelle. Voilà, décoré de couronne, parce que c'est le roi de la médecine traditionnelle, c'est le calife général de Guinée. Euh, dans son accoutrement, on remarque un grand boubouille avec Voilà, Dengen, Madame Sow, la reine, la reine de la Moulay Sow, Dengen Serigne ah nee na tey moo wax sëriñ bi na génne nii delluwaat Makka def nii moo tax ma naa ne marxaban marxaban ah vraiment macha allah moom tamit vraiment mu baax lool sincèrement yaata ñu ci kër gi ah bëgg ñëpp macha allah ci baat ki alaaj Thierno Moule Sow gis ngeen ba tey sëriñ bi mu ngi koy wër ah gis ngeen ba tey góor gi mi ngi suulu ah gis ngeen suulu bi moom dafay am lu muy def ci ñoom. parce que dès la première fois nga am contact ak volcan bi lépp loo xamante ni dafay nekk ci yow day deñ buy deñ na du yomb et ça sera très difficile mais patient bi mooy mooy teniiru rek parce que tamit lu ñu def ci yow buy génn du du du yomb. voilà gis nga sëriñ bi mi ngi koy wax mu def loxo yi voilà gis ngeen ah ngi mi ngi suul loxo yi. macha allah gis ngeen sëriñ bi fépp foo xamante ni rek euh, nit mun na fa def yàq-yàq daf koy suul euh, jublu ci wudu nat euh, patient bi am jàmm parce que da ngeen koy dégg chaque jour mu ne nit bu ma xasee ba jox xaalisam damay damay damay rayante tey am lu mu bëgg incha allah eh, gis ngeen ni muy sonnee ci ay fajam macha allah gis ngeen góor gi ba mu ngi nekk noonu di suuru ah sëriñ bi mi ngi koy. voilà gis ngeen ba tey ñu ngi koy wax mu suuru voilà mi ngi nekk di suul loxo yi ba tey ñu ngi ci séance de consultation bi tey muy samedi 12 octobre 2024 voilà dégg ngeen conc bi voilà gis ngeen fi mu waxoon ni dafa am lu ci génn démb ah te sëriñ bi waxoon ko ñu ngi ci sa kaw waaye kort ak yooyu yu ne mën nañu ko sànni gis ngeen dafa yeewu rek sentir mu néew yi xam ngeen ni nit koo xamante ni dóoru fenn loxoom gaañu fenn jékki-jékki saay loxoom muuru yaa quelque chose ah gis ngeen ba mu ñëwee sëriñ bi yu bari mi ngi ko ko doon wax voilà. voilà gis ngeen ba tey mi ngi mi ngi suuru ah mais sëriñ bi est-ce que différence am na ci entre ay kortu ay njagang ay yu ñu lay sànneek yooyu ay cenke bëri ay ay façon kay am na korte am na cenke am na dabare yooyu yëpp am na parce que boo xoolee yi ñuy sànd nii bu yàggee day yaram bi day def ay bul bul bul bul loolu bu yàggee day rey nit am na ñu bëri xamante ne loolu moo leen rey mm-hmm. waaw loolu la lépp day deñ mm-hmm. lépp lu nekk ci yaram bi dina deñ incha allah. te ngeen nu ko sëriñ bi. des bi xam la quoi xeetu xam-xam yooyu. ku ñu ko def rek li ñu la yéene mooy nga dee maanaam defuñu ko pour nit ki di dund dañ koy yéene pour nit ki faatu waaw xeetu yooyu bon yooyu lañu ko def mais lépp day dañ incha allah. parce que dañuy gis à chaque dañuy fàtt mais ay jinne ñoo ci dugg yooyu gis ngeen. am na am na tamit ay shaytaan shayatin am na tamit ay xam-xam yi bon yu ñuul xam-xam yooyu dafay dafay lalu ci wàllu jinne maanaam wàllu jinne. maanaam xam-xamu jinne lay doon xam-xamu seytaane genre korte nii genre xam-xam yooyu la xam-xamu seytaane quoi maanaam dangay def léegi gis léegi comprendre nga. voilà teg ngeen évidemment sëriñ bi wax ah, gis ngeen góor gi ba ba tey mi ngi nekk di suuru ah man miin na miin na kër gi xam nañu sëriñ bi di fonctionner gis ngeen keroog bañ koy defaral contrat contrat bi ah euh, sous la supervision du grand secrétaire yonent bi defe naa moom la ñu liggéey ñu jàpp ko kon képp ko wax ne liggéey mënuma jàpp ah dafa fekk nga am gàllaaj de wala nga am ñaan mais sinon <laughs> yonent bi si boppam suñu exemple di gën mi def di suñu yaakaar tey ëllëg moom la ñu njabar ñu tey ko kon njabar bàyyiwul kenn président sax dañ koy liggéey ministre wax noppi maanaam buur yeeg ruwaayeeg yëpp maanaam liggéey bàyyiwul kenn boo amee protection nag moom mun nga rëcc ci loolu wala bu ñu la liggéeyee ñu dindi ko kon liggéey liggéey jombul kenn parfois ñu yeew président bu mu ne cote ba du mun def dara du mun a yëngu du mun a nooyi ñu yeew parfois ñu yeew ministre wala ñu yeew kilifa diine wala kilifa aada liggéey ko ba du xam jàjj joor liggéey bàyyiwul kenn lu xanaa nga am protection nga am ñaan wala ñu liggéey la nga dem ci ku mën a dindi loolu mu dindi la waaw ah, parce que rasulullah salaa salaam kenn du moom waaye gis nga ba ñu ko njabaree dañu ko téye. Mm-hmm. voilà dégg ngeen parce que y a beaucoup de gens que ay sëriñ parce que fii tamit dafa am ndegam rasulullah salaa salaam gën gi mbindeef moo gën ñëpp. ah lañu ñu mu jàpp ko ba yàlla wàcc aaya bu mu mën a protéger woo kon nag ça existe on en Afrique donc ut leen ñaan ci seen bopp. parce que souvent da dégg sëriñ bi ci ay euh, vidéo muy expliquer di ngeen gën a ñaax tamit ah parce que Afrique lañu nekk aussi sëñ bi. Afrique la ñu ne nit ñi dañoo ñeme yàlla ah, ñeme sëriñ hmm, bëgg alal bëgg àdduna fàtte ne àllaaxira dina am fàtte ne suba dina am lu nit ki am yéene wuñ la ko loo yor ñu teg ci bët da ngay moom sa alal sax nit ñi bëgg ko jël ci sa loxo. bëgg la rey bëgg la fi jële da ngay xettali dimbali ko mu dem ba mu yàgg ci ci sa alal yow mi ngi koy dimbalee mu bëgg la rey jële la foofu donn sa alal loolu mooy Afrique waaye nag fagaru moo gën faju loolu mooy Sénégal moo tax aar sa bopp ci jaamu yàlla la bokk fagaru ci jaamu borom bi la bokk ndax boo fagarawul boo suurawul gars yi dañ lay dañ lay dem suuli ndax moom kii am na choc bu choc bu rëy bu mu bu ko moy choc boobu mooy cinq mu mu mu décédé te gis nga liñ ko sàndi aussi waaw moo kon jël 3 millions def ko sa bopp <laughs> dund moo gën jël 3 millions denc ko nga dee après gars yi noosee ko du noonu Sénégal nag loolu la xaalis bi ngay fay sëriñ yi nangam nangam fii ku nekkul ci bu gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi sénégalais moo dàq sangu moo dàq suur moo dàq ñaanlu mais duñ ko wone soo ay waxee affaire sëriñ ñu ne la man gëwuma yooyu ki lay wax gëwuma yooyu moo la gën a gëm sëriñ day làqatu di dem di sangu ji ci àll ba dem fu ne dañu yaakaar nag xam-xam bi ci àll ba la ne déedéet waa àll ba waa kaw ga ñooy ñëw fii ñaata nit ñoo may woo ñu dëkk Casamance ñaata nit laa faj ñu dëkk Casamance ñaata nit laa faj ñu dëkk Guinée Mali Togo Burkina dëkk àll yi dëkk àll dëkk àll yi rek laa wax sous région yi ñaata nit ñooy jóge foofu ñëw fii di sangu si ay Bakel ak ay fu ne kon xam-xam nekkul ci àll ba boroom xam-xam yi nekkoon ci àll ba yëpp daanaka dee nañ mais bu waxee ñu ne la da dem ci àll ba sangu nangam nangam nangam waa àll ba dañooy ñëw fii vraiment di sangu fii ci kër gi fii kon nañu jóg suñu bopp protéger wu aaru def ay ñaan yàlla musal la waaw. voilà dégg ngeen ni ko sëriñ bi waxee muy un conseil vraiment pour tout le monde ah conseil gis ngeen góor gi ah mi ngi suulu gis ngeen bët yaa ngi xonk cuur. vraiment mhm. gis ngeen dégg sëñ bi nee na lépp lu nekk ci moom rek day génn parce que souvent da gis bu ñuy suuru ñi dañuy ñandu ñi dañuy jooy ñi di génne ay lorit ñi di waccu ah di transpire vraiment volcan daal euh, efficacité totale am ah parce que dégg ngeen souvent sëriñ bi dafay wax ni boo ko suuroo lépp loo xamante ni mi ngi ci yow da koy dindi voilà kon nag mbokk yi ni ngeen déggee sëriñ bi wax ko jug leen ci seen bopp jug ci seen yaram Sénégal la ñu nekk yow mbaax gi ngay jàppe sa bopp di ko dunde keneen mi ngi sa kaw bugg laa faagaagal parce que it euh, ñëpp am koo xamante ni noonu la mi ngi jug sa kaw parce que kenn kenn bëggu kenn raw ko kenn bugg kenn avancé ci kawam kenn bugg kenn am lu mu am vraiment en tout cas daal Euh, surtout Sénégal ni mu demee ni jamono ji doy na waar lool ñaan rek képp koo xamante ni ah jug leen ci seen bopp ça existe ku mel ni El Hadji Thioune Moule Sow le roi de la médecine traditionnelle ah gis ngeen ko waaw ak jaay doole bi dégg ngeen ah jaay doole bi voilà am sa alal nit ñëw bëgg ko nangu par force euh, di la liggéey di la def ay affaire bëgg la rey ah, doo comprendre mais daal bu ñu ci alaay Thierno Moule Sow ak ñu mel ni ñoom parce que yàlla dafa maye gis ngeen affaire jinne gis ngeen li mu ciy wane di leen ko wan kon nag ça existe suñ borom nag mooy may dafa bind nit ñi vraiment euh, nit ñi ute lool ku nekk ak li mu la may gis ngeen moom li ko yàlla may mu doon ci loo xamante ni li mooy liggéeyam c'est un expert. bañ na ko ba dafa defar clinique am donc nag euh, ça existe daw si leen ci moom gaaw. expert médecine traditionnelle expert tradipraticien maanaam wàllu faj expert laa ci ndax xam-xam bi ma yor ci faj defe naa ne wër na àdduna bi yëpp macha allah suma garab dem na fu ne ci àdduna bi defe naa c'est la première fois Afrique euh, médecine traditionnelle bu génnee deux cent quarante quatre millions jënd clinique ci Afrique amul. Sénégal dama ko jëlale ci Afrique laa wax wane naa lu ne ci faj def naa ay luuma pour maanaam sama xam-xam wane naa ko dem naa Kaolack macha allah dem Medina Baye giseeg imam bi giseeg xalifa bi ñu tadagal ma dalal ma ngoon jot ma dem ci estade ba nit yi di daanoo kër ga di daanoo fu ne ci kër yi lañuy daanoo waa dégg su ma nee salaamaaleykum jinna salaamaaleykum jinna nit ñi di daanoo ci kili ci kër ya ñu leen di yenu di leen indi ci biir stade ya pomp pompier yi taxaw policier yi taxaw mm-hmm. defe naa vidéo yaa ngi fi amul lu ma wanewul ci faj faj macha allah dama delloo faj maanaam dama faj ba suñu borom taral ma ci faj ma delloowaat faj mm-hmm. jënd clinique deux cent quarante quatre millions jël cent millions def ko ci def ko ci ba pare. Euh, macha allah innové aussi faj c'est la première fois médecine traditionnelle bu jóge fii def tournée internationale dem Europe te aussi maa ngi koy waajaat waaw maa ngi koy waajaat ci fin d'année yi pour dellu Europe incha allah xam naa ne dinañ préparer jàpp jour wax ak taalibe yi ñuy jàppaat jour incha allah maa ngi préparer waat defaat tournée quoi ci international bi ci fin d'année bi moom Europe la may fekk incha allah loolu tamit. boo leen di defaale ngeen communiquer ko fin d'année bi dina ma fekk Europe bu soobee suñu borom waaw fin d'année bi moom Europe laa koy dem waaw ci fin bi dana ma fekk Europe bu soobee suñu borom kon man amul lu ma wanewul ci faj lépp lu ma wa wane ci faj lépp lu ma wane defit la wane naa lu ne damaa ñëw imposer suma bopp parce que dañuy waxoon ne boroom xam-xam yi ay dóorkat lañu sëriñ si nii naa ma ñëw wane suma bopp ne ah aha ma ne ma ne ñëpp yemuñu ndax ñëpp bu ñu yemoon am ñu gédd seeni i cër yàlla li muy maye moo koy maye ba tey ma ñëw dëggal suma bopp wane suma xam-xam wane suma baati di filmer di wane loolu man maay sëriñ bu ko njëkk a def fii ci Sénégal di filmer di wane loolu man maa ko njëkk a def fii. voilà mbokk yi euh, dégg ngeen ko l'annonce est faite. gis ngeen El Hadj Thierno Moule Sow li mu wax donc nat waa international waaj leen ah gis ngeen sëriñ sëriñ bi bu dee wax parcours am sax ah vraiment duñ fi jóge parce que euh, yàgg faj pendant des années tawlaf nee na lu dëgg du yàgg du dëgg moom du yàgg mbokk yi ngeen gis ni ba tey ñu ngi ci séance de consultation bi. bàyyiwuñu ko xam nga kon àdduna dafa doy waar. nit yi dañu bon hmm? mag bu toll ni kii di nekk naan da ngay def liggéey di ko jéem a éliminer xam nga àdduna moom mooy loolu waaw moo tax fagaru gën faju jóg sa bopp protéger ba ñu nekk réew mi nga xamante ne réew soxor la ak iñaan waaw boo dëgërul rek dañ la fiy jëlee waaw boo dëgërul rek dañ lay jëlee boo toogul ci say tànk dëgg dañ lay jëlee dañ lay génne stade bi waaw kon nag noonu la voilà après dañ la fiy jëlee ba pare la waa nga perte la vie continue kon nag loolu la da toog ci say tànk ba mu dëgër ku la ne man gawuma sëriñ boo ko bettee guddi lu muy lu muy sangu sax dangay ngay tiit ku la ne yii man gawuma yii xamal ne dalay lay lëndam fii ñëpp a gëm sëriñ xalifa généraux yi ñoo dàq sangu fii kilifa yi ñoo dàq sangu muy aada muy diine kilifa aada ak diine ku la dàq sangu dañu dem ba da am seeni kër ay ruq yi nga xamante ne spécial pour sangu la waaw tabax néeg pour sangu garab ah waaw. pour sangu garab kenn du fa nekk dam la fay nekk dugg foofu sangu lu ñuy sangu génn tëjaat ah, waaw lu kay am na. ah waaw am na am na am na am na deful jóge fii waaw ah, waaw mais c'est normal c'est normal man kër bi may tabax nii sax après day am néegu sangu garab c'est normal mais noonu la boo ko deful dañ la fi jëlee duñ la fiy jëlee foog nga sangu protéger wu. mais da ngay perte fii ku dee ñetti fan ñu fàtte la boo deewee ci même jour bi sax dañ lay fàtte néew bi la ñuy wax duñ ne diw ana néew bi ana koor bi boo deewee dañuy wax ana koor bi ana néew bi ana néew bi ana koor bi tur bi réer na kan moo perte fii ku dee perte ku dee rek perte nga mm-hmm. kon nag sa biir dund profitool jaamu ci suñu borom. dund ci dund aljanna bu baax lekk-lekk baax sol lu baax defar sa yaram ku la laal na ñibbi na ñibbi kër gu mag yow bul def nit lu bon waaye ku la jéemal fexe na na na na dem mais bul def nit lu bon ah waaw waaw fii Afrique la de nit yi dañu dañu ñeme yàlla ba pare dañoo ñeme yàlla ba pare ragal seytaane <laughs> dañuy ñeme yàlla ba pare jaamu seytaane dañoo ñeme yàlla jaamu seytaane waaw parce que seytaane moo leen di digal ñuy def ba pare ñu rag ñu ñeme borom bi kon nag da ngay toog ci say tànk bu baax. voilà dégg ngeen ko sëriñ bi waxee dégg ngeen aussi ñu ko góor gi ba waxee ah sa sëriñ bi nee na bii mooy dernière bi gis ngeen suugi na parti yëpp loxo bi hmm, vraiment gis gis ngeen sëriñ bi mu ngi koy wax mu defaat loxo yi. aduna dafa doy waar nit ñi dañu garaaw alal jaral na leen lu ne alal ak jigéen jaral na leen lu ne yow it sa yaram na la jaral lu ne waaw soo fi bëggee yàgg waaw sëriñ moom boo ko bàyyee ginnaaw xamal ne yow sa àdduna yàqu na voilà sëriñ boo ko bàyyee ginnaaw xamal ni sa àdduna yàqu na en tout cas bu ñu déglu ñi nga xamante ni dañ nekk naan ay sëriñ nangam parce que ça existe aussi sëriñ nangam boo ko toppee ba topp ko lu muy yuus ci garab di sangu kenn du ko sangu ah waaw fii Afrique la dañoo am réalité dafa am ay dëmm am ay jinne am ay seytaane am ay liggéeykat ay njabarkat ak yooyu ay yàqkat ak ay boroom bët ak boroom làmmiñ ak kutkat ak yooyu dafay baax parfois sa yaram nga koy nga koy nga koy nga koy defar c'est importance waaw. voilà ngeen ni sëriñ bi wax. machallah c'est l'Afrique et l'Afrique a ah, ses réalités aussi comme niñ ko déggee mu doon loo xamante ni ñeer na ñëpp nag bu jënc alal mu gënal la wér gu yaram dinga nga jënc ay millions boo seetaanee ba gars yi faagaagal la boo deewee da ngay perte mu doon loo xamante ni bon euh, c'est bon pour tout le tamit parce que tamit wér gu yaram amul amul njëg ñu ci bari dañu naan ay waa diw day laaj ay millions mais joxe million am wér-gu-yaram gënu ko mais diw moom tamit dafay liggéey xam nga Sénégal dañoo bëgg yomb ñoom nañuy am te keneen du am bu keneen di am duñ ko yéene mais tamit nit mënul faj lu mel ni jinne rab mu doon lu garaaw yàlla may ko xam-xam boobu mais tamit loolu moom mooy liggéeyam et c'est très normal c'est très normal parce que koo xamante ni contrat lay tegal dangaa ñëw andi jàngoro nangam ne la jàngoro bi incha allah. dina faju waaye temps laa koy fajee dañuy signé contrat li ma wax di nga ko gis mu doon nga xam ne c'est la première fois di innovation aussi euh, ci Afrique ci médecine traditionnelle ci monde bi aussi parce que tamit euh, c'est pas donné à n'importe qui ay xam-xam bi ko yàlla jox man wu ma gën a neex ci moom souvent dama koy wax bu waxee benn ñaar ñett ne du man yàlla la damay sant yàlla bu baax di jóge ci yonent bi kon nag mu doon loo xamante ni suñ boroom nag ku ko gëm mu gëm mu jàppal la boppam ku ko delloo sa bopp mu téel la boppam yonent bi ku nee na kii ku ko bëgg ma bëgg la boo sonnee ci moom rawatina la mu ciy sonn di jël lu ne di ko def àddi yonent bi di ci faj ne nit ku mu faj sax famille yonent bi nga njëkk xalaat pour tuddee la jinne boobu kon nag donc les gars suñu borom dafay maye comme ni ma ko waxee chaque jour man sama micro bii laa yem di ñaan yàlla mu gën ñu cee kawe te mu gën incha allahu rabbi mbay caméraman mooy yor. Baye Cheikh c'est un grand agent sécurité yaat ma Mi un grand secrétaire en secrétariat Mamadou il est là c'est un gestionnaire ah donc nag nañu nañu nañu nañu xool quoi ñun li ñu mën rek la ñuy ñaan yàlla mu kaweeg ñu ci la ñu yem te keneen ku nekk ci leneen di ci am leneen dañu koy yéene moom nag li mu nekk di ci yàgg ci sonn ci waaw mais c'est normal mu am lii nag wax dëgg fa yàlla parce que tamit lu du dëgg du yàgg c'est un expert en médecine traditionnelle je dirais même un agrégé parce que tey jii gis ngeen diplôme yi ñu koy jox Europe partout ah euh, décor yu ñu ko fii andil teranga yu ñu ko fii andil tey jii bu doon am na bibliothèque di ranger yu ñu koy jox daanaka fees na bay tuuru euh, mu doon koo xamante ni vraiment c'est une icône ci médecine traditionnelle et ku réew mi war a sargala dégg ngeen ko sànq mu annoncé que ni dina demaat def tournée internationale kon boog Belgique Angleterre Suède Danemark France Espagne Italie Suisse Allemagne partout à travers l'Europe waaj leen ko El Hadj Thierno Moule Sow mi ngi ñëw mi ngi ñëw de képp koo xamante ne nag fi mu toll nii dégg nga annonce bi préparé ko boo déggee El Hadj Thierno Moule Sow dawal jëndi gaaw say billet eh, bii mooy gën a saf bee passé gis ngeen xam naa ko xam naa ko li mu capable eh, lu mu wax ba dëggu ci ba tee ah mbokk yi daw leen préparé. xaar billets yi xaar annonces yi ah on dinañu on aura de faire des grands plateaux annoncé ko incha allah bu ko defee mu gën a yaatu bi yoon ça sera la meilleure tournée dans sa carrière parce qu'il ne cesse de fair des exploits mais bii moom ça sera parce que dem na Màkka ñëw macha allah gàmmu na yooyu yëpp ay secret yoo xamante ni yéen tamit da ngeen ci jotaale seen wàll donc mbokk yi. di ngeen gën a mën a am occasion yaatal ak El Hadj Moulay Sow faire le marketing de cette grande tournée. voilà gis ngeen ba tey sëriñ bi mu ngi yor kurus bi ah, di di ko defal ay ñaan ah gis ngeen chaque fois day yor chapelet bi ah bien habillé nag macha allah no sëriñ bi tey ku ko waxul da ngaa sañsewaat ci commentaire yi moom ah da ngaa sincèrement. vraiment euh, des mocassins décorés de, de, de couronne en king hein, un grand boubou marron un djallaba avec son chapelet en or ah gis ngeen ko eh, gisee à chaque fois buy wax et c'est très normal nit da ngay jaamu yàlla la yàlla defal nga dund ci liggéey ci profité wu ci parce que àdduna tamit nag ah gudd na guddut waaye ku ci jaamu yàlla defoo ci lu baax waxoo ci lu baax boo dee da ngay perte. vraiment suñ borom du ñëpp la koy jox et bu nga ko joxee tamit nga xam ko euh, sincèrement di ko ko sante parce que lépp ab cant la rek lépp ab cant la gis ngeen moom ni muy dundee ah maa ngi koy wax la fois passée bañ fi reere ma ni man spaghetti bi ma lekk spaghetti européen la et lii la lu mu lekk ñu lekk ci lu mu sol ñu sol ci ah fu mu dem yóbbaale ñu lu mu xam wax ñu lu mu am may ñu Eh, ñu ko ci santaat bu baax a baax baax a baax macha allah gis ngeen ba tey sëriñ bi mu ngi ñaan ah di ko ëffal ci bopp bi voilà xalif général an eh, gis ngeen ko voilà ba tey gis ngeen mi ngi suuru gis ngeen ni muy tremble nii aussi ah, di def de petit tremblement gis ngeen mi ngi tremble hmm, voilà mbokk yi bon eh, gis ngeen jóg leen daal ci seen bopp. parce que fii moom ku fi nelaw gars yi dañ lay rey nga dee benn yoon parce que kenn bàyyiwu kenn en fait kenn bàyyiwu kenn donc nag jege leen El Hadji Thierno Moule Sow ñu mel ni ñoom tey defu baax gis ngeen à chaque fois du koy wax ay nit dañ fiy ñëpp moom du def loolu gis ngeen El Hadji Thierno Moule Sow ba mu dalee faj ba tey ah ci dynamique bu mu nekk bu doon def leneen feeñ na mais li muy wax di ko woote loolu lay dund loolu lay jëf moo taxit suñ boroom tamit <laughs> ku ko jox boppam mu téel sa bopp mu téel a boppam macha allah gis ngeen ah toujours exploit yi muy def vidéo yi muy wane c'est pour vous montrer parce que nit ñu bari dañu leen naan ay bu leen faju bu leen nangam non non parce que tamit te ñoom ñu ngi faju di sangu waa <laughs> dégg ngeen sëriñ bi ah kon nag gaay euh, mhm. gis ngeen mi ngi mi ngi rox waaw voilà mbokk yi gis ngeen. Mhm. waaw gis ngeen mi ngi ñàkk tooy xepp mhm. euh, macha allah gis ngeen mbokk yi ah gis ngeen cuuraay bi ah gis ngeen ma leen ko waxoon mhm. chaque fois. lay def bu fi jógee jàmm rek ak salaam lay am. gis nga nu muy ñàkkee cuuraay bi fu ne lay dugg lépp lu mu fekk ci yaram bi da koy kii la ñuy wax waaw boo gisee mu tuddee ko volcan xam nga volcan dafa am doole. Ah, waaw volcan day explose moo tax mu tuddee ko volcan teg ci jooni jooni maanaam dafa gaaw. waaw mooy volcan jooni jooni. <laughs> inspiration sëriñ bi nu mu nga dikkee ah? dama am xam-xam ba pare am xel damay xalaat xam nga mënoon naa yor xam-xam te duma am xel boobaa dañ may jariñoo te duma jariñ suma bopp parce que waykat bi wax na ko. nee na eh, nee na kii ku ah, am na nu mu ko waxee. non non ku yeewu yaruwoo boo yeewul yaruwoo alalu alalu borom barke nga man damaa am xam-xam ba pare am xel damay xalaat sama maañ bi sama ndong li day xalaat sama maañ bi day xalaat man lu may lu may lu may lu may xoole moo ëpp lu may lu may nelaw. waaw dama am xam-xam ba pare boole ci di xalaat dafa am solo nit danga nga war di xalaat du noonu. waaw réflexion ah dégg ngeen sëriñ bi ku am xam-xam te moo xew aussi yeeg ak zéro dégg ngeen ni mu ko mu ngi ñax waa Europe nañu préparé waa France waa Suisse waa Espagne waa Italie Genève waa euh, waa waa Allemagne Suède maa ngi ñëw maa ngi ñëw la xalif général des jinne le roi médecine traditionnelle du monde. maa ngi tourné waat Europe incha allah fin d' bi maa ngi ñëw Europe na ñëpp waaj bu soobee suñu borom la king of the king le roi médecine traditionnelle di monde. defe naa ne bi yoon ba ma demee France dama ko dëbb ba mu mooy ba ba mu ba mu mox. maa ngi ñëwaat nag maa prochain numéro incha allah Retro Moulé tournée internationale bi lay doon ñu fàttali leen ko. eh waa Europe waat leen aussi parce que sëriñ bi mu ngi koy wax di ree mi ngi koy wax di ree kon nag ah ça sera de grandiose. a quelque chose de surprise aussi. Donc, préparez-vous et attendez à ce que vous réservez vos billets, achetez vos billets et attendez le grand expert marabout médecin traditionnel El Hadj Thierno Moule Sow ba tey mbokk yi ñu ngi ñu ngi ci séance de consultation bi ah pour cette année si pour cette fois-ci vous aurez l'occasion d'avoir de de de nouveau marketing yeneen xeetu Elaj mu ngay Sow xaar ngeen sax série marketing pourquoi pas ah en tout cas euh, dinañ ci waxtaan et xam ngeen Elaj Thierno Moule Sow innovation à chaque fois day bett ñu bari parce que daanaka dégg ngeen ko li muy créer li mu du nelaw moo ëpp foofu heure boo ko way jot ko man defaa fois dama bi moom ah da ngay woo parce que tamit bu nga yàlla dénkee yenn nii dafa am mu la war et responsabilité bi muy doxal aussi. bu du nga faj rek yem ci da ngay nemmeeku ah macha allah gis ngeen nit ñi ah saa su nekk dañuy ñëw di ko def ak témoignage ah di ko andi ay teraanga ndax baaxam ah mënoon na ni wax dëgg fa mën naa lu may mën am naa lu may am ujjantuma kenn mais def ko sincèrement ah gis ngeen ba tey sëriñ bi mi ngi téye kurusam di ko wër ah di ko ñaanal def ci bopp bi sànq ba tey. ba tey mi ngi suuru volcan jooni jooni bi gis ngeen volcan j'avais fait une voix j'espère en 2021 ou 22 ci volcan euh, cuuraay bi euh, j'espère bien xaar dinañu waxaat euh, régie ñu mise à jour ko indiwaat ko incha allah et les compilations du du aussi voilà gis ngeen ba tey mi ngi suulu gis ngeen mi ngi vibrer fi mu toog nii di rox ñàkk tooy xëpp aussi parce que ku nekk ak ni mu rek ñii dañuy wàccu ñii dañuy dindi ay lorit ñii dañuy transpirer wu. Mhm. première bi metti woon na loolu mhm. mais gis nga léegi mu ngi ci biir di bu baax. Mhm. cuuraay bi kon def na effet quoi. voilà dégg ngeen sëriñ bi nee na par rapport ak ba mu koy soo commencé am ah, ko miin parce que tamit boo boo soogee am contact ak volcan bi dafay métti parce que li ne ci yow lay dindi. ah mu doon yoo xamante ni c'est bio aussi dégg ngeen sëriñ bi gàncax gañ ko defaree ak ay ñaan ah, ak ay xam-xamu boppam roy cuuraay bi nag roy dundu roog piir donc nag du lu rek volcan la <laughs> en tout cas venez approcher la Cheikh Sow dans sa clinique Daaru Laahi ah jël leen seen ay rendez-vous ñëw leen gaaw parce que nit bu la def defalee dara ah te mu lay jariñ ak lu mu mënti doon peu importe loo ko fay fayoo ko gis ngeen ni muy sonnee yére bu mu sol sax bu paree faw mu xaw a am ay ñàkk naangam te mënoon na ko cee bañ a fekk fu mu toog lay toog voilà mais dafay sonn ci fajam parce que da wax man dama mën sama nit bu amee malade dama koy topp bu amee problème dama koy xeexal dama koy sotal voilà et c'est la première fois nag au Sénégal ñuy gis un marabout guérisseur expert en médecine traditionnelle comme lui vraiment boo tàppee ci YouTube bi sax El Hadj Thierno Moule Sow nga ñëkkee ne mbirum jinne bind leen jinne rek li koy man maa ngi ko wax bind leen jinne bu scrollez trois premiers vidéos yi bu ci nekku premier deuxième troisième waaye tamit des fois YouTube dafay laaj ay mise à jour mais bind leen jinne rek parce que il a marqué ses empreintes ah donc gis ngeen ba tey ah dégg ngeen sëriñ bi nee na bon suuri na bu baax voilà ah donc suuru na ba pare sëriñ bi. waaw suuru na macha allah gis nga ko nu mu mel ni ñaq na tooy xepp cuuraay bi dugg na ci yaram bi daanaka lu bari génn na ci moom. léegi dañuy dem ci néeg ba après mu jël garab bi mu dem sangu macha allah. voilà dégg ngeen sëriñ bi wax. muy dugg sama dënd bi. wexat. wexat jàpp sama bët yi waaw. léegi kay tane na. waaw que dafa am yu bëri ñu ko sànni yi ñu ko defoon. Mm-hmm. Mm-hmm. moo mu metti. Mm-hmm. première bi day metti parce que li mu fay fekk moo tax. su loolu dégagé woo rek da ngay gis nit ki day oyof après day soulagé quoi waaw sant yàlla rek. waaw ndax ndeysaan doomu aadama xaw ma lan lay soxoree yow. moo moo moomaanoo nga bëgg jëlee nit ki fii ci yëfam loolu dafa metti waaye nag jàmm rek lay am dafa ñëw ku mën a xeex nag yi nga xamante ne tànk amul ndam du bàyyi noonu man sa waaw bu ma jàppee tànk awma lu ma bëgg du bàyyi sama xeex du jeex du ma tooñ nag waaye sama xeex tànk awma ndam du ma bàyyi noonu laay doxee <laughs> voilà dégg ngeen sëriñ bi dégg ngeen góor gi li mu wax euh, gannaaw ba mu suuloo ba pare dañuy dem voilà li nga xamante ni moom mooy vite bi moom tamit mu doon deuxième échéance ci sañseem euh, ci ci ci fajam gis ngeen vite fait bi ah saa su nekk bu ko yëngalee gis ngeen nga fa passé vidéo bi mu defoon ak cette jeune patiente te jinne yi jàppoon ko ah mu doonoon doy waar mais gis ngeen élargir mu ngi sow facette bu mu wanewaat dem ah solu summeeku solu wan ko ni c'est le khalife général des jinne gis ngeen naa mi ngi mi ngi yëng ak bi gis ngeen góor gi mi ngi euh, mi ngi jël vite bi ah pour dem sangu ji gannaaw ba mu suuroo ba pare macha allah euh, gis ngeen mi ngi jël vite fait bi di dem di sangu gannaaw ba mu suuroo ba pare voilà gis ngeen mbokk yi séance de consultation bi tey mu doon samedi 12 octobre 2000. 2024 gis ngeen sëriñ bi mi ngi koy wax ni muy sangoo hmm. vite plus la dañ ci mixé yeneen bagage moom lañ waaw gis nga ko nu mu mel ni tey tey dafa gis nga ko nu mu mel nii dama ci mixé yeneen i affaire quoi macha allah mooy vite fait plus bàyyiwul dara waaw lépp moo xam liggéey korte cenke dabare liggéey bu buñ la mën a sàndi ak lu bon lu luñ la mën a def macha allah euh, lépp da koy dindi lii nii ah gis nga tey nu mel beneen couleur la joxe tey ah waaw macha allah waaw waaw day dem jël temps am sangu bu baax yaram bi yëpp tànk yi ah loxo yi ah yëpp dégg nga allah waaw ngay jël sa temps di bomb muy wàcc ba mu siwo bi jeex tàkk nga yëngal da ko balaa ngay sangu da ngay yëngal nii après nga wax yaa xam li nga bëgg rek nga wax yëf yéene rek sangu ñun def nañ li ñu war a def yëpp. voilà dégg ngeen sëriñ bi nu mu ko expliqué vite fait plus ah euh, gis ngeen xëy sëriñ bi na du jeex na day sodde <laughs> ah euh, gis ngeen mbokk yi ah góor gi ba euh, séance de consultation bi. Machallah, à vous qui nous suivez à travers TikTok, hein, les amis de Tcherno et la Mourissol de Yadma, hein, vraiment, abonnez-les, abonnez abonner, euh, tapotez les live, bi, commentez les, partagez. da ngeen di gën a gagner expérience ah parce que tamit li dafa am c'est réel ça